أطعمهم من خوف أطعمهم من جوع بسبب هاتين الرحلتين وآمنهم من خوف بسبب احترامه لهذا البيت ومن دخله كان آمنا واو موتاخ الإسلام ci aaday jàmbur لي دوغو Euh, rexlata chitaa wa sayfa araba ko moom jëkk wàcc lislaam waaye bi lislaam wàccee defaral na leen ko ndax itam arab yi fu ñu dem di fa jëggi booba jamono ñu teral leen ndax dañ naan ñoo dëkk ca Kaaba ga lu mat a déglu la fu ñu dem rekk marchandise ma gën ñu jox leen ko jaay leen ko prix bu yomb lu tax ñii kat ñoo dëkk ca Kaaba àggoon nañ ci bu ñu defee benn rexla ci jamono sedd dana leen doy dund ba tàngaay ñëw bu ñu defee benn rexla ci jamono tàngaay dinañ ci mën a dund ba sedd ñëw ngir jëmmi Kaaba gaa ngi ci seen biir yàlla ni kon nag nanu def société mag yéen comme néeg bi moom gi ma ko moom ngeen dëkk fi mu ne moo tax ñu di leen teral ma barkeelal leen loolu ci néeg bi ngeen ormal ma néeg bi waaw mu mel na société dafay daldi di dikk yàlla wàcce lislaam fekk aada yéen nit ña baaxal mën ko jariñoo Euh, bala nga koo xam nga toppatoo ko lislaam bare na fi yiw wu mu fi fekk yiw wu mu fi fekk nag saxal na ko yépp nag foog nga xàmme ko ci biir lislaam yiw yi mu fi fekk te saxal ko ndax itam yàlla dafa dul ci lislaam rek la tàmbaleeg nit ñi ba mu tàmbaleek nit ñi kenn xamul kañ la kon nag jamono bu ne bu wàccee lëf la ca baax ñooña denc ko di ko jëfandikoo bu wàccee beneen diine diine ba du sañ a dàq booba su ko defee li nit ñi baaxle la leen di saxalal encouragé leen ca pour ñoom itam ñu saxalal ko la mu ormal te mu dellu si ci jëmm muy société digganteem ak nit ñi bëgg na nit ñi di góor lool ci lu jëm ci seen wàll bëgg na nit ñi di góor lool ci lu jëm ci moom yàlla waaw moo indi loolu ba moo tax mu am yitte gu day nag li mu am ci projet ki li mu am ci problème bàyyi ko fi di tudd jëgg gu waa Quraysh di jëgg lëf la waaw mooy ku ma fonk rek man yàlla ma fonkal la la nga nekk waaw li ma nekk nekk yàlla li ma bare bare problème ak li ma bare bare ay programme ak i projet ak njëgg li ma nekk nekk détail waaye comme yéen a ngi ci sama néeg bu ngeen ma ko ormalee rek seen njëgg mi dal di bokk ci sama biir diine ci waaw loolu noonu la deme ba moo tax njàmbaar wàññiwul dara njàmbar wàññiwul dara njàmbaar wàññiwul dara njàmbaar ci loo bëgg njàmbaar ci looy wut sonn ca ba yépp xam ne sonn nga ci loolu dafay tax yàlla gën a sopp jàmm waaw te yonent bi wax na ci ñaari yëf yu am solo waaw bu jëkk bi moo di li mu wax ni nit jóge na tool walla nit jóge marché dox ca diggu yoon wa dégg jam ko mu soox ko ngir mënu ko sekki ca diggu mbedd ma ñëw ba ca këram mu tàllal tànkam ñu di fàkk digg tànkam di nàcc ba ñu génne ko nee na yàlla doxe na ci baal ko bàkkaar bu mu mas def ci dundam waaw seetal loolu xam nga lu tax la mu doon wutee tax waaw njàmbaar ga mu am ba dem tool ya njàmbaar ga mu am ba dem marché ba di fa wutal lu mu am mook waa këram mooy tax dég boobu ko yàlla teg ci diggante bi yàlla ne meluma noonu waaw dég bi du man waaw kon nag su gaaree waaw waaw kon nag nee na bu dég bi gaaree rek danaa ci dëgg ma itam baal ko lu mu mas a def ci bakkaar waaw mu dellu wax ni nee na képp ku dee te fekk ñaari doom yu jigéen judd nañu ci sa biir kër nga mat leen bàyyi yar leen ba ñu di njagamaar nga dee nee na lislaam bi jàpp ni shahid nga nee na nga doom bu jigéen nekk baayam yombul ndax war na yaru te doo ko brutaliser boo ca amee ñaar nag nee na yàlla baal na la sa bakkar yépp bés boo dee rek martir nga waaw ah kooku moo xam lu di responsabilité moo xam lu di nekk boroom kër moo xam lu di nekk baay waaw ndax doom jigéen dafa yombul yar Dombu bu góor man nga ko dóor wante dom bu jigen ken war waxu la ni nang ko nangga dañu wax ni na nga Wah, ba mu ñëmé la té bañ la yeb waaw na nga fexé ba mu ñëmé la té bañ la yeb waaw bobu nak ku ca def ñaar safara wacc na la waaw su ko defee ngeen xam ni yii ngeen di xeeb dugg ci boutique bi jënd suukar jëme sa waa kër yooyu ngeen di xeeb lu ngeen ci bareel te rafetal ko rek mënul ànd ak yàlla di xuloo teg yéen ëllëg ah ndax itam yooyu it yëpp bu ci nekk yonent bee ko waxal boppam ak itam xam ni nit ñi njabootu yàlla lañu waaw ba tax na it xam naa la sidna Aïcha génnoon moom mi nga xam ni lu yonent bi mas àtte àtte na ko waaw te jigéen la moo da daan na wax ni ndaw selede laaj leen bu ngeen ma laajee seen genn wàllu diine yëpp laaj leen ko seen genn wàllu seen diine yëpp laaj leen ko seen genn wàllu diine xam na ko sidna Aïcha dafa génn seen benn waay buy dox mu mel na ku xaw feebar mu ne kële mbaa du dafa feebar ñu ni ko déedéet dafa dafa dëddu àdduna rek mu ne ko dab ko waaw mu ne ki mu àndal dab ko ni ko umar ibnul xataab dëddu àdduna te bu dee waaxu ku ko bëgg dab doo ko dab ku mu dóor gaañ la waaw ni ko dab ko nga wax ko ko waaw waaw moo tax yonent bi ku bëggoon yu demee noonu la waaw law kaana jaladu hada fi sabilillah daan na ko faral di wax nee su ko defee nag diggante yàlla ak nit bu ko defee ak jaxasoo ngi ci goo xam ni nag yàlla fokk itam moom itam dafa am lu ko war nag yàlla nag mënul xëy nag bind nit ñi te tàgguwu leen indi leen ci àdduna teg leen coono bu day na bi mu leen teg muy coono bu war a jur xam-xam ak yépp nag nattu ya cay gaar nag mu bëgg ci dëgg nag pour nag nit ñi kenn ku ne mu tëral la ren ji la kooku mënul nekk nag waaw kooku mënul nekk moom it fokk mu am fu mu leen féete waaw loolu moo tax mu ni xudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu waaw kulu min ak wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min addunia waaw foofu nag la yàlla waxante nit ñi nit ñu ni ko ah d' yàlla mais bàyyi nu nu nekk nit ñu ni tam mu ne ay kuloo min tayibaati ma razaqnaakum ak wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min addunia waaw foofu nag la yàlla waxante nit ñi nit ñu ni ko ah d' yàlla mais bàyyi nu nekk nit ñu ni mu ne ay waaw mu ne ay ca kon nag jàkka ji maa ko moom waaye bu ngeen ciy dem sañse leen ba wex xat waaw julli gi dellu si ci man sañse bi dellu ci yéen d'accord ñu ni d'accord waaw waaw waaw ñu ne ak lan mu ni kulu washrabu wala tusrifu ñu ne ñam yu neex yi nag mu ne lekk leen ñu ne ndox yu sedd yi nag mu ni naan leen lu dul ci charte bu leen ci fër mukk waaw parce que bu ngeen fëree tooñ ma ndax ndax ëpp ngeen ko nit ëpp na di fër waaw ndax daf ma jege ba lu lu lu ko tuutal waru ko def waaw kon nag d'accord lekk leen ci na mu gën neexee naan leen ci na mu gën sedd wante bu leen fër

وتعمل تكتي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين والمفسدون هم طغاة الأمة وذو بطالتها نانا نك بول ياق سما سوف سي جارال فوفو مالا واخ رك باسكو يالا بوغول ياق كات لي ني نيكو نيان موي ياق كات ني موني موي ني بيو اك ني تايال واو ني تايال با دونو خام سما ورسك موك يالا ني دال توغ نانيو واو ñi yiwa di ba duñu def lu yiw mukk nee na tooñ nañu ma waaw nee na ñuy ñaar daal la ko tooñ parce que kii yiwa di dana tax doo xam jaamu yàlla foo tollu di ko móolu waaw ki tayalit dana tax doo xam wërsëgu yàlla ndax du jariñanteeg yow mukk waaw bu ko defee nag ñu ni yonent bi lan mu ni mu dellu ca ñaan ga rek rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati xasanatan waaw alxasanatayn moom rek moo am yàlla may nu teranga ju kenn amul ci àdduna may nu teranga ju kenn amul ci àllaaxira waaw nee na jàmm bu ne moo yell ci yow baaxal ci àdduna ba dee dem àllaaxira di fa baax ba faw rek waaw waaw nee na su ko defee it ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اك لي يونتي بي واخ نعم المال الصالح للعبد الصالح جا واخ بو غات با واو نينا والله على الجيو يالا تكو سي لوخو نيت كو ييو نينا موي يالا جام واو نينا لو ييو ييو سي ادونا nee na tu utuloo alal bu yiw nanguwuñu sëg yiw nena na lu mu yiw yiw ci àdduna te teguñu ko ci loxo ku yiw nanguwuñu yiwuk alal ji ndax bu ci nekk rek gàllankoor lay indi waaw parce que boo yiwee te amuloo it loo faje sa soxla sëg yiw dafay dal di jeex ndax koo gis teg ko soxla waaw waaw te su ko defee alal ji yiw bu fi nekkee te joxuñu ko ku yiw it alal ji yiwam dafa dal di jeex ndax kuñ ku ñu gis mbalee la ci ku ñu gis rek mbalee la ci maa ko am amuloo ko mbalee waaw waaw nee suko su amna mo xaw démé ni mbokk ma doon wax mbokk mu jënd otoom di wax chauffeur bi rombal fofu sama nona ngi fi ah waaw rombal fofu sama nona ngi fi bo fa rombé na nga na nga ko mbibal waaw yooy yëpp ci xeeti yi weddi rek la waaw ah. ah. waaw ah wara day tali ñoom lu ñu wax rek am na lu tax waaw lu ñu wax rek am na lu tax nee na su ko defee nag boo seetloo loolu yëpp da ngay xam ni lislaam xalaat la bu nga xam ni nit ku ne mën na ko jariñoo xeet wu nekk mën na ko jariñoo ndax itam li mu jublu rek moo di fexe ba xett li nit mu génn ci li ay baayam nekkoon te baaxul ci ni ko alquran waxe xam nga alquran a ngi wax ni nangam ci la fekk sama baay kenn du ko wax nee na kenn du ko wax alquran tere na ko nangam ci la fekk sama baay bu fekkee ni la nga fekk sa baay nee na la nag ne dang ko bay dang ko bay da nga wax ni maa ngi ci deug rek mu jeex sa baay ak sa mam bu ci sa yon nek waaw maa ngi ci deug jeex na waye sama ci nangam la ko fekkon bu fekke lolé musibe la koku doxul waaw nee bobu rek mo ci walam mu xaw delu ci la أبو الطيب المتنبي ويكت لك من ويلا ويم ويجيمل تيب أه، أه، وي بمو وي كافور وقنك فإن تفق الأنام فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي kenn mësu ko dégg mu ne ko su fekkee yaa kawe nit ñi ni nga leen kawe te bokk ci ñoom ñu di say mbokk jaaxalunu dafa am fu ñu jaar ak yow fu ñu jaarul ak ñoom waaw mu ne ko fa ñu jaar ak deret ba mu nekk misk dellusi ci kër gi ñu tëj ko ci armoire te la des ci deret ñu ñu ñu an lu ko sànni ko ca boppu dëkk ba li dellusi ci kër gi dafa am fu ñu jaar ak moom waaw waaw li ñu jaarul ak moom fenn nag ca àll ba la jëm waaw ndax misk ci deret lay jóge parfum la mais ci deret lañ ko liggéeyee waaye buñ ko ci liggéeyee ba noppi kenn dootu ko ñëw yeñoo yi di sànn ci àll ba ñu ngi ko denc ci biir armoire bi waaye nit it bu ñu jaareek moom fi ñu jaareek misk ñañu fa jaarul ak ñoom bu ñëwee it kawe leen فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي مجا ف موتاخ نيت كين دوكو نات تي وي جورم تي تخوايام nga ko nat ndax kat way jur limuy for for for dokul ak nit lu mata xam la way xamul fi yàlla jaar ba tabax doom ba mu tangga xamu ko loolu tax nga xam ni seen responsabilité ak responsabilité ki génn bokkul du benn ba tànn boo fa ne yëng rek toog fa def nga musiba waaw waaw dëgg la say wayjur dinañu àgg foo xam ni di nga leen sant ndax di nga xam ni lii ñooma waaye itam am na wàll goo xam ni nag boo ca àggee lànkal bu ñu la tee jaar fi góor ñëpp jaar waaw bu ñu la rëbbee sax du la dal waaw ene su ko defee sa taxawaay rek moo ci am solo benn woykat wax na ko ci wax bu am solo nee na nee na ci ci ci boobu ci boobu wàll magalel sa wayjur nangam nangam say wayjur ñole tax di dund nangam hadhi bin nafsa hadhi bin nafsa bil ulumi la bil walidain haddi bi nafsa bil ulumi li tarqa wa taral kulla wa taral kulla fahya lil kulli baytu هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت إنما النفس إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت واو إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت فإذا أشرقت فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت بس هذب نعم. النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت فإذا أشرقت فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت نعم. ويكد waykat نغسل nee ci sa xam-xami bopp ndax nga mën a yëkkatiku nee na sa bopp néegu lu mu doon la nee na sa bopp nag néegu lu mu doon la sa bopp néegu lu mu doon la kon nag lu dikkul ci yow la waaye sa bopp néegu lu mu doon la nee sa bopp nee na mooy weer bi nee na sa xel moo di mees bi ci biir nee na xam-xam bi yàlla may nit démb te ku judd mu jox la ko kaweley wayjur du tax mu eppele la ko ña ca des wayjur du tee mu jox la ci lamu mu neena moy na pétrole ba neena su dajee nak nga tal dund nga ñepp ni ma nga nalé su wul nak mu kenn du la gis ya nga bok ci bammel yi neena wa taxna dal Nenata taxaway la bo xamni fokk ni ta koy amal bopam deug la wayjur amna luñ ci man amna luñ ci man waye la ci ëpp dal ya koy taxawal sa bop nee bu ko defé taxaway la bo xamni ñaari sey ben ben sey seyu ñaari pas-pasay mana tax mu judd seyu ñaari pas-pas pas-pas bi nga am pour sa bop du génn sa bopp mukk subaak ngoon ngay surveiller sa bopp di natt sa kaddu di natt sa jëf di natt sa wax di natt sa liggéey lu ci ne nga teg ko ci teguwaay ba mu jeex ak pas-pas bi ci mbooloo mi lu mbooloo mi baaxle nga fekke lu mu baaxlewul nga wacc waaw sëyu ñaari pas-pas yi rek moo mën a jur jëmm joojule Lena, nee na lu doma mooy rek nee na doomu adama dafa dund Cikau, ay duusi géej rek duus bu moomee rek bu ko sànnee ba ca des jël ko du xam fu lolo teere ji nee na looloo kaman la yadri asharun urida bi fil arda am arade bihim rabbuhum rashadat. waaw dangay mujj dellu foofu rek kaman laa yadri acharrun urida bi man fil ard am arada bihim rabbuhum rachada waaw ah yàlla mooy ni lu xew tey xewoon na bu jëkk ni nit ñiy jaaxle tey jaaxle woon nañu démb bu ni toll di wax ni itam yar boobu mu wax boo ci jaarul ba duus yi amee la di la sànnente ne daa dema dem ba doo xam ndax yàlla dafa bind nit ñi pour yiw wala daf leen bind pour musiba dootoo ko xàmmee musiba ma yépp yàllaa ko mujj yanu ji ba diis yi amee la di la sànnente ne daa dema dem ba doo xam ndax yàlla dafa bind nit ñi pour yiw wala daf leen bind pour musiba dootoo ko xamee musiba ma yépp yàllaa ko mujj yenu ji waaw bu ko defee nag mu mel na boog yàlla dafa jëm ci wàllu foog ndax bu jàmm amatul dafa mel ni boog yàlla dafa foog waaye nag afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق واو أنا يعني يلا بندل نت نتي فوق waa dafa mel na ñu ci la ñu jëm daanu ci agsi mu mel na daal li daan xew bu jëkk mooy xew léegi nit ñi bu ñu jaaxlee ba jaaxle dañoo defe ni yàlla xëy na foo taxoon mu bind nit ñi parce que da nga dul xam kenn ku ne fu mu jëm fan la waaye fekk na demewul noonu nee na su ko defee itam dafay tax relation yi war a am ci diggante pénc ak pénc ci diggante nit ak nit dana dema dema dem ba xaw doyadi dana dema dema dem ba nga defe ni sax nekk dina dema dem ba kenn ku ne defe nga ni sa morom la mu laa fonke moo di rek gën ko ñàkk yërmande gën ko ñaaw wax ñu dem caa dema dem ba wut penc moo xam ne nag yasuudu fiha sawtul xamir waaw te wa inna ankara al aswaati la sawtul xamiri law kaanu yaalamun waaw boo demee dema dem ba ya sunu penc mi daal ku fi dàq saaga dàq fi xuloo rek la ñuy may jàmm kon nag naa fexe boobu bu ma kenn dàq saaga bu ma kenn gën a naqari deret nee na nga jóg di ko defante defe ne yaa ngi ci sa fulla yàlla moom ci alquran sawtul xamir la ko tudde baatu ŋaaxu mbaam waaw yàlla ko tudd ci alquran nee na am na nit ñoo xam ne ŋaaxu mbaam la ñu dese te wa inna ankara al aswaati la sawtul xamiri law kaanu yaalamun yàlla ko wax ci alquran nee na baat yëpp baatu mbaam laa ci gën a laa ci gën a mën a mën a dee supporté waaw man yàlla waaw na ndax na mu yaatoo njëriñ la toll wul waaw waaw waaw ah njëriñ la toll wu ni ndax tabarkalla xam naa dana di yenu waaye rek it boo ca dajul la mu ca daj yan ba des gannaaw waaw ah waaw waaw kon nag ana njëriñ la moom moo la ko yenul waaye fokk nga sonn comme moom waaw boo sonnul comme moom fu mu seen kan parce que yéene defi yen bi yaa cay nekk di xareeg moom mu ni dana ci dugg waaw waaw xareeg moom xareeg moom ba nga passé boobu fu mu seen oto di ñëw mu fas yéene jaar ci tali bi oto bi booleeg mara day tali nga dàq fi xaj ji fi mu lànk rek loo ko sonal dana la sonal lu ni toll waaw waaw waaw wata yalla ni ni ni coow li toll njëriñ li tollu ni wa inna ankara al aswati la sawtul xamiri law kanu yaalamun wala mboot mu dellu si ci la mu wax ci al ankabut waaw التي اتخذت بيتا تو إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ناحيتم bare pexe nekk ci dëgg ko gën ndax yàlla moo ko lépp ci jargoñ ni mu bare pexe xamuloo fu mu nekk ci néeg bi wante boo yeewoo fekk mu ràbb ci néegam rabbin woo xam ni la mu ca du la ko wax waaye wit sa baaraam rekk nga ca lonk mu sotti waaw sa baaraam nga ca lonk mu sotti moom moom du soxla nga génn néeg bi moo tax yàlla fekk lu tuuti ak lu mag bu ci ne mu léeb ci léeb ci mbaam bu dee ŋaax ñépp dégg ko waaye boo ko bëggee faj la soxla mu lëjal la ba dootu bëgg soxla bi faj jargoñ it muus muus bi do dégg ay tànkam fekk fenn ci néeg bi waaye boo yeewoo fekk mu def kër ci sa biir kër waaw sax bare pexe rek waaye ci biir bari pexem te tegu ko ci dëgg ndax waxuñu ko mu dugg ci sa biir ne càll ba lañu ko wax ba tax na li mu fi ràbb it yàlla du la ci sonnal sa benn baaraam rek nga ca lonk mu jeex waaw لأن متى احنا دل نانا نيت كو نك نانا نيار لا سيق لو نيو تودي النزاع النزاعة الإنسانية أك لو نيو تودي الوعي الوعي الإنساني

sa condition ak conscience bi war a yenu condition bi yii rekk ñoom ñaar ñooy nit condition bu nekk nag ci nit ci nit ki la aju waaw condition bu nekk nag ci nit ki la aju ci yitte nit ki la aju dëgg la tabia am na lu mu dul mën a yenu waaw tabia am na lu mu dul mën a yenu te moo di ñun daal fii ci Sénégal suñu condition moo di euh, gerte bu ñoree ñu dundal njaboot yi takk ceyti yi gane ganeyaan yi nangam nangam wax a ba àggal mais kooku mi ngi aju ci loo xam ni genn wàll gi nga moom genn wàll gi moomuloo ko mu ngi aju ci taw bi te ren tawul mu mel na bopp li ren di tawa di tawa di yàlla moom buggul sa personnalité yëpp ñàkk taw bi na ko sa poche yëpp mais sa personnalité bu mu ko yëg ne ko sa poche yëg mais bu ko sa personnalité mukk yëg bu ko sa poche yëgee li tax sa personalité du ko yëg mooy man nga am yitte boo wutee lu remplacer gerte mu ngi aju ci sa yitte ki nekk ca tool ba di am fukki junni ci gerte gi amu ko ren waaye ñëw na ci marché bi jaayaatu ba am ci fukki junni benn la ki ko mënul ci réew mi mu takk ndiggam génn wuti ko fu mu ko mën a ame ji kooku bëggul woyofu poosam personnalité am yëg ko ba looloo taxit yàlla wax ci li mu ci wax ci alquran ki réewam amul ren mu génn du wuti manko garantirel ni fumu dem dana ko melal ni rewam waaw manko garantirel itam ni budde ci yoon wi martir la ko jàppe ndax ci ci ci ci sabilillahi la nek ci la nek wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil l ardi muraagaman kasiran wasaa waaw yoon wi yëpp yàlla ko koy nooyalal waaw ba tax na condition nit moom la nit ci boppam man bare na waaw te boo ko seetee ci sunu mbokk chinois yi di ko mën a nangu ndax jigéen joo xam ni yàllaa ngi dogal sa réew di xare sa réew di xare ci biir xare bi yaa ngi ëmb yëw jigéen ji fi ngay mucce bal yaa ngi dal ci sa wet ba danga mucc rekk ñu dawale la doom ji xamuloo fu mu jaar ndax dee na ci bal ya walla deewu ca walla for nañu ko xamuloo ci dara doom boobu boobule topp ay loxo ñu dawale ko tasaaroo bi tax na kenn xamul ndeyam kenn xamul baayam mooy xale bu jigéen juddu màgg tuuti am ñaari at ñett commencé di mën a daw ñu di ko yenn bool bal ya ndeyam doon dégg mu di ko dégg ba xëy nekk ci jànq xam ku daanu ci toolu xare naka la laa faje ndax ci la dund ba bëgg mi ci bal dootu ko dootu ko dootu ko gêner dootu ko déranger kooku nazaa la ba moo tax koo gis rekk mu ñaawal kanamam wala mu ñaawal njortam yaa nga gis jigéen joo xam ne nazaa moom mi ngi àgg ci ci xari la judd màgg ci ba bal yi takk du ko gêner waaw boo demee léegi ba gis lii dal suñu mbokk chinois yi daa xam ne nasaa lu rëy la ci doomu aadama et que nag nit lu mu mënul euh, euh, lu mu mënul wàkk amul nit lu ko nar a wàkk rek mën na wàkk loolu ba jariñoo ko waaw waaye nag boo miinul loolu xamuloo lu dul jàmm eh xamuloo lu dul toogaay xamuloo lu dul tayal xamuloo lu dul loo bëgg jigéen ñi defal la ko daa dema dema dema dem ba ba lu dikk di sa musiba waaw daa dema dema dema dema dema dem ba lu dikk di di sa musiba waaw ba tax na it di bàyyi xel ci ni an nazaatul insaniya lu am solo la bàyyi sa xel ci ni alwaayul insani lu am solo la te itam li gën a am solo yépp mooy nit xam la mu bëgg ak fa mu jëm loolu rekk moo am solo xam la mu bëgg ak fa mu jëm waaw su ko defee euh, lu am solo la waa euh, bu mata bàyyi xel la fii ci Sénégal ndax yàlla ko def muy réewu teranga di réewu euh, neex neex neex jamono nangam nangam nangam nangam nangam nangam wante it àdduna mën na woyof waaye adduna it mën na diis boo defee bàyyi sa xel ci sa boppit xam ni lu dikk war nga ko mën a dominer it lu ama ama am solo la waaw su ko defee di dund xamuloo ni ñun mii léeg dinañ ci am ay xalaat yu doy waar ndax itam mbooloo mi nga bokk yépp ak li ngay wóolu wóolu borom mbooloo mi yépp du dàqonte ak sa personnalité bopp kooku def dul dàqonte ak sa personnalité bopp te it nga dem a dem a dem ba def inventaire sa sa jariñu ci biir mbooloo mi ak sa jariñu ci sa bopp mais di ko seet bu ci ne fan la tolloog nu mu toll daa ci dema dema dema dem ba la doo wóoloo sa kilifa waaye xam jamonoog natt jamono dana tax moom sax dem ba barkeem nga teg ko ci balance bi dara la ci dul man ba xam loo jariñu ci barkeem ak loo jariñuwul ci barkeem ak loo mën jariñoo ci barkeem ak loo mënul jariñoo ci barkeem dafay am li nu wóolu Babacar Sy di ko wóolu Maodo di ko wóolu yonent bi yëpp bés bu ne loolu am waaw waaw bis bu ne nga teg seen barke seetloo ci man jëriñoo loo xam ne da ko mën tudde seen barke ak loo xam ne nag sa digganteeg yàlla rek lay doon waaw nee na mu xaw deme nag nii war na nga dem ba sa nazaa boobu nga teg ko teg sa waayi eh, dàq nag lépp luñ la waxoon nga dàq ko li la sa sëriñ waxoon nga dàq ko li la sa baay waxoon nga dàq ko teg sa nazaa ak sa waayu bopp ba xam ñoom naka lañuy ñuy ak li la sa sëriñ wax ak naka lañuy ñuy ak li la sa baay wax fokk mu am sama serigne ma wax nangam sama serigne ma wax nangam sama baye ma wax nangam sama baye ma wax nangam nga dema dem ba jamono ñew fo xamni ni li la sa sëriñ wax mëna to ci jariño dara jamono dema dema dem ba li la sa baye wax mëna to ci jariño dara dana di am dana di am motax bu la sa sëriñ rawee mu upp do ko mëna layil wala nga mëna layel ci sëriñ ngeen xawa tolo allo waye su la rawé bu mu ëpp do ko mëna layel layil mënul nekk waaw waaw waaw sa bàyyi itam bu la gëné xam aduna den bu ca do to ko mëna layel layil dana am jamono nak nga dem ba sa xam aduna tolo ak bosam nga soga man layi bosam waaw waye soko deful do dem mukk loolu la yonenti bi wax ni ku ñu jurul ñaari yoon sa affaire du dox waaw ku ñu jurul ñaari yoon sa affaire du dox yene lo loolu mooy lan mu ne ndey bay ñoo jur jur bu jëkk bi te tudde ko diw mu dem dema dem ba ni gëng nag ya ah, legi kat kenn juratuma ma jur sa mbokk waaw jur boobu muy jur boppam nag yonent bi neen ku sa mbir baax fofu la baax waaw jur sa bopp baax na di nee na su ko defee itam am na lenn lu xew lenn li xew moo di ñi am xam-xam te fa suñu yéene ñi ci des mukk xàmme ak ñi am alal te fa suñu yéene ñi ci des mukk am nee na musiba nee na ëppatu ko ndax nee na it boo yeewoo yow rekk te ñi ci des yeewuwul mboolem ku yeewuwul yaa ko yenu ji seetal loolu ku war a ànd ndog nit ñi di dox boo mujjeetul lu dul yenu leen di dox foo jëm te loolu yeewu te yeewuloo ñi ci des a koy war waaw te am itam te bàyyiwuloo ñi ci des ñu am ci kooku itam nee na li muy jur moo di teraanga joo bokkalu kenn nee coonu lay mujj nekk maanaam annazaatul insaniya wal baayul insani ci ni ñu ko mën a déggee annazaa mooy li nga fekk li nga fekk nag bul ni rekk lii laa fekk fexeel ba bu wàññi ci sa fulla dara nga xam ni yaa ko déggul wala taxawaay ba ca war defuloo ko mooy ci juddu rekk fekk gerte rekk mu ne gerte laa xam man mag ñi gerte lañu daan bay lu dul gerte duma ko bay ba ñàkk taw dikk ci moom dana xam ni gerte rekk yàlla amu ko ci kaw suuf waaw waaw alwaa yi nag mooy wone ni nit nga moom Euh, mooy wone ni sëriñ bi na ko màgge baay bi na ko màgge buur bi na ko màgge waaye yaa ngi tàmbalee nangu seen mbir fi ñu tàn tàmbalee nangu sa mbir waaw buur bi la faalewul dootul sa buur baay bi la faalewul dootul sa baay sëriñ bi la faalewul dootul sa sëriñ demal sa yoon wuti beneen buur wuti beneen baay wuti beneen sëriñ waaw ko noonu rekk la toll nee na ba tax na daal foofu la leen dimbalante war a dikke nag ndax benn défaut mu ngi am ci Sénégal boo sañoon ki ngay jëriñ du màgg mukk ba mën a jariñ boppam waaw ndax itam defe nga ni bés boo ko jariñatul mu wéetal la te fekk na kooku ak réer la kii nga xam ni kay boo teddee mu tedd sa man-man yokk waruloo ko añaane mu tedd waaw waaye nag boo gisee boroom kër yi ku nekk di waaxu naan li may defal diw li may defal diw lim ma faye li may defal diw lim ma faye nangam maa ngi ci tabaski ji maa jënd xar maa def li koo gis mu di ko wax rek du nit ndax itam dafay indi aada bu bon aada bu bon bi moo di danga ci dem ba boo sañoon ñépp seen njëriñ di jaar ci sa loxo te nag réere xéewalu yàlla la waaw kooku réere xéwalu yàlla la waaw nee su ko defee ñaari bakkaar a ngi ci bakkaar bu jëkk bi moo di moom yëgloo gi nga ko yëgloo ni ko surga nga moom it mu yëg ko ba fas ci yenee nekk ba xëy wuy ji boromam yaa ko ni surga nga yaa ko jox ruuxu surga rey nga ko waaw waaw su ko defee moom it rey na la ndax ku fas yéenee nekk kilifa ba faw sa dund yàqu na yow kay del boot waaye ku fer bàyyi ko mu doxal tànk waaw waaw waaw waaw waaye su dee ku ku fer nga ni naa ko boot keneen fer nga ni naa ko boot sa gannaaw du ko fekki ba tax na ba tax na nee difficulté bi ci gën a am solo nga xam ni ku ne xam na ni lii difficulté la bu am solo moo di nga yaru ci milieu boo xam ni milieu ba nanguwulaa may lu dul ci benn nattuwaay boo xam ni boo demee ba sa biir ëpp nattuwaay ba it moom du la bàyyi nga paase nattuwaay bi nee na musiba mu rëy la te loolu dafay am di nga jur doom mu nekk ci biir kër gi dama dema dema dem ba fullaam ëpp sa fulla bu fullaam ëppee sa fulla nag càkkutéefam mooy ëpp sa càkkutéef bu sa bu càkkutéefam ëppee sa càkkutéef itam ñemeem mooy ëpp sa ñeme soo ko bëggee nag wàññee ni ko la ma xamoon rekk ngay xam yaa tooñ sa bopp tooñ ko waaw kooku it mënul nekk kooku it mënul nekk su ko defee ca la ñu dema dema dem ba ngëneel yi yonent bi wax ci tukki yëpp looloo ko sabab dema dem ba ci ma nga bokk mënatulaa may nga jot sa yittey bopp yonent bi ne demal sa yoon wutil ñu ci seen yitte ab moo gën lu ko mooy boo fa toogee daañu la tànc ba sa yitte fay na nit waaw doo ko jariñoo mukk su ko defee nag dinañ ko xam nun ci sunu réew yi sunu réew yi nangam bu nu masaan nekk di jaay gerteeg tes tes tes tes tes daan naa ko dégg ci jigéen ñi waaw waaw sa baay am lu nekk ngay jaay gerte ngay def lii ngay def la ñoom duñu xam sax lu xew waaw duñu xam sax lu xew su ko defee mag ñu bare at mi ma njëkkee jënd gerte ci Tiwaawan mag ñëpp saisir nañu Serigne Babacar ñu ko mi ngi ci bastuliyeeg di gerte ak te yi barke mamam ëpp na lolou man leen sama barke mam bu ko ëppoon duma ko def go ko duma ko def ah ah ñom dañ dul xam mawdo da nek ci bir Tiwaawan keur tubab gone mu yónnee fa di leb dépense mba muy leb dundu keureum bu nekkon ci keureum dana ko def waaye amul jotu def ko ndax bu ko defoon joteek nit ñi ñu naan lu tax mu bàyyi këram dem di jaayi gerte benn werante nekku ci am na yoo xam ni aada rek la waaye teguñu ko fen fen lañ ko tegul yow sa bàyyi li mu am xam nga ko li nga bëgg xam nga ko sa bàyyi sa soxla mën na lekk soxlaam téeméeri yoon jamono koo indi xamuloo ne xale yi dañu xër du dëgg jamono koo indi daa dem ba ëpp sa bay soxla lu jaadu la waaw kooku lu jaadu la waaw ah. nee na su ko defee itam boo ko seetloo ci boobu wàll nga gis Eh, ni déggu lislaam jafe na jullit yu bare te it lu ñu jàng jàng jàng jàng alquran wala lu ñu jàng jàng xadis rek dégg ki daldi di des ndax it yooyu li ngay xeeb te nga xam ni bu nekkul sa àdduna yàqu doo bu sa waa kër xiifee sa jaamu yàlla yàqu bu sa waa kër mare sa jaamu yàlla yàqu bu sa waa kër rafle sa jaamu yàlla yàqu dara nga ci mën waaw ndax yàlla personnalité koy jaamu yàlla personne du ko jaamu personnalité koy jaamu te nag personne bi bu matalewul ay waru garam personnalité am damm te bu personnalité am damm yàlla la am ku mu waxal waaw ndax itam yàq gi ngay yàq ba mu judd ci nit a nga defar ba judd lu ci lu ëpp la nga am waaw moo lay wan ni jaru ko yëri wut ko jarul nga def lu tax ñu teg ci yaram wi lu koy ñaawal yére jaru ko boo ñaawalee sa yaram ba noppi bul soloti yére parce que li gën a baax yàqu na ba noppi defal yaramu neen rek dox ci mbedd mi moo la def na su ko defee nag mu mel na euh, jullit yi léeg-léeg ñu dégge ko noonu léeg-léeg ñu ñàkk ko dégge noonu te it waxtu wu nekk yàlla ngi dogal nu di ci am ay daje ki kilifa léeg-léeg nga jàng lenn ba xam ko xalaat ca ba ñoral ko boo ko génnee wonul ko ko rekk dana ko jaral mu génne jaasi léegi rendi la lu tax moo di li mu xam daal la fasul yéene nga wax ko ci leneen waaw kooku kilifa yu bare bare bare yàlla dogal na nu daje ceeg ñoom jote ceeg ñoom waxuma sax fii ci réew mi waaye suñu tukki bi ñu defoon ci réewu arab yi daanaka bu nu dellu see yàlla waaw ndax itam léeg-léeg gis nit di ko yaakaar wax ko loo xam ni moom tourné rek ren di lay bëgg te it li nga ko wax doo ci gis lu dul eh, lu jaar yoon waaye fekk na it nit ku ne na moo tërale ak la mu miin rek dafa rëy ci moom eh, jamono yi nga xamee ni lakk nañu maanaa jamono yi nga xamee ni jàkk jële ca baytul maqdis dafa lakk ñi ko dégg ñëpp ci kilifa yi am benn daje bu ñu def fële ca Rabat daje ba itam ñun ñu def benn projet lettre yónnee leen ko di leen wax ni mbir mi daal bu ñu ko àggale fu mu àggul loolu am na ñoo xam ni soo leen ko waxee rek mëkk la lañ cay teg ndax itam du ñu mën nangu jullit ñëw ñu ni ko baytul maqdis jàkk jafa nekk lakk na moo am lu mu cay teg kooku ñoom mënuñu ko dégg waaye fekk na ko xam yàlla yi daa ko mën a dégg ndax itam mbirit bu ne xay ni cëpp bala nga àtte xamal lan la dangay xam lan la nun fekke wunu ko kay bu ne xay ni cëpp bala noo kay wax dara xam lan la bu nu ko xamee it ci ruuxu taqdir it nañu xam fu nu koy teg waaye it nag am sa neex jamono goo xam ni tabarkalla Eh, lu leen neex rek nga yenu jëme kaw asamaan ne adduna tukki na adduna tukki na adduna tukki na te fekk adduna tukkiwul ah wa bay dox waaye ñu ci bare bare ñaare boo leen ko waxee ci mbooloo ñu xul mer boo wéeteeg ñoom waxtaan ak ñoom ñu nangu ko ndax dafay metti waaye fekk na tëralin dafa jafe tëralin dafa jafe-jafe boo xam ne léeg-léeg nga gis ku ni bara lislaam moom nañu dellu cosaan nañu dellu cosaan nañu dellu cosaan soo ko waxee ni ko luy dellu cosaan du la ko wax mukk ne def la ko dul wax ndax àdduna bi demewul noonu te itam keneen moomu ko nag ku dul yàlla te yàlla it du l'islam rek la am ci àdduna du jullit rek it la am ci àdduna képp kuy dox yàlla moo moom ci àdduna diine yi fi nekkit moo leen boole moom su ko defee da ngay xam fooy yem ak xam nooy waxe déet yàlla boo ko woree rek feeñ boo koy wor di feeñ amul werante yow li ngaa saaga yépp ni moo yàq jamono bi yaa ngi ci yi ngaa saaga yépp ni moo yàq jamono bi yaa ngi ci ba noppi bëgg jóg nag bind ci lu day na ñey ni nañu jóg xeex al jihad fi sabilillah ma ne ah nga de waaw ma ne naa def booboo nga tey rek waaw booboo nga tey ndax it yàlla moo demewul noonu yàlla li fi nekk di turaas ruux yi ak di turaas maddi yi moo ko moom yëpp fi nit ñi agsi moo leen fi agsi loo waaw te it loolu tegtal yu bari wan wan nañu ko moo tax man toujours bien que am na ñoo xam ni dañu wax ni man dama bëgg a def Euh, séparatisme wala séparatiste la lu leen neex ñu wax ko fekk na du noonu yenn jamono damay wax ni ñun suñu lislaam nañ ko dugal ci suñu cadre yi réew ak suñu cadre yi indépendance ba la ñu jóge jëm feneen waaw ah? ndax itam koo dem ci moom rek fekk ci moom ay problème nga xam ni kii tant que résoudre ay problème am du la faale kon kay nekkal sa réew tëral sa l'islam ci sa cadre réew ak sa cadre indépendance ku ci nangoo def yow nag coopération bu ñu mën a dégg nga def koog moom amma jëmm nag xëy ni àdduna yàqu na àdduna bi dara yàquwu ci dara yàquwu ci waaye nag bu dee bu keneen amee nga ñàkk ni àdduna yàqu na fekk na sa àdduna moo yàqu waaw maana nee buur dafay dafay nekk nii ni kii mooy sama géwél jur doom géwél bi jur doom nee na buur sàggane doomam géwél bi toppatoo doomam ñu dem ba màgg yàlla ci màndoom ak xam gi mu xam ni buur ak géwél amul mu teg ci doq géwél doomu géwél bi responsabilité yu mu tegul ci doq doomu buur su ko defee bu doomu géwél bi rombe doomu buur doomu buur ne accam àdduna yàqu na fekk na àdduna yàqu yàquwul àdduna moo yàqu waaw waaw waaw su ko defee li ñu wax ni bare na ku waxu ne àdduna yàqu ne te fekk àddunaam moo yàqu àddunaam yàqu mu defe ne àdduna yépp a yàqu waaw te fekk na du noonu sama mbokk tukulóor ba ba ñu ko tafoo te fekk na boobu dafa bëgg takk jabar ñaari at mu di ko sonn ba ñaari at yi mu am ci lu dul jeex te tukulo dañu bare jom dañu bëgg seen mbokk te doomu mbàjjanam lañu ko dik mu dem ba jub dëkk ba rek fekk tabarkalla xaalis bi tafu nañ ko ci yoon ba mu demee ba jub dëkk bi ñetti kilomètre mu làmb daju ko mu dal di génne satalam bu jekk jàpp jàpp mu tooy jublu penku julli ñaari rakk ni yàlla ci barke allah ji umar bala maa àgg ci dëkk ba yal na àdduna tukki ah mani xam naa danga naa ne am na am yu protesté nee ñu daal defe nañ ni dañu juum waaye séeréer la woon nee na nee na su ko defee nag xam ni e, wàllu googule soppiku gu mat sëkk daf ci am moo di lislaam dafa ñëw bu mu ñëwee wàcc ci loxo yonent bi yonent bi teg ko ci loxo nit ñu néew ñu am pas-pas ñu dox ak moom siiwal ay xam-xamam ba ñépp dugg ci ñu xëy xëy yilif àdduna bi booleeg seen diine dem cee dema dema dem ba ñeneen jóg takku ni ndeke pas-pas mën na boole ak àdduna yilif ko dalaat ci kaw jullit yi fekk jullit yi pas-pas bi nekkoon ci ñu jëkk ña nekkatul ci ñoom waaye ñi jóg bu bees duñu ay jullit pas-pas bu toll noonu ngi ci ñoom te yàlla fas na yéene doxal taarix mu bàyyi leen ñu duma jullit yi ba ñu leen duma yilif leen nag mu daal indi ak wujjante wujjante mooy waaw yéen a tey waaye démb ñu ne woon nekk ci ba téere yi ñu bind ci loolu kenn xamul na mu toll te boo ko seetee ba ci biir ci wujjante rekk la dellu kenn waxalul yàlla waaw ci ak wujjante rekk la dellu kenn waxalul yàlla su ko defee nag bare na ci ñoo xam ni boo leen nuyoo lañ lay jëkk a wax mooy nangam indil la aayaat yoo xam ni sore naag li xew ndax ki la koy wax réew ma mu ne réew ma def dul mënal boppam dara ba mu sotti kon nag bu la bëggee indil aaya bu la tax nit kiddi kiddéeral doo ko nangu danga ko dul nangu dangay seet ni jamono doxale moo gën ndax itam ñu ngi koy waxtaane démb ak sama benn mbokk moo xam ne fële la jóge ca penku ca charq la jóge euh, boo seetloo ci tëralin di nga mën a yaatal ngëneelal yàlla ba jariñoo ko inii wa baynaka yaa fariixal amjadi kon mbokk yi tey nag waxtaan wi lañ leen indil tey ci tabaski ji comme ni ko baaxoo def at mu jot di leen dégtal waxtaan